weeru jigéen ñi 6 mars 2021 2022 arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi pare nga Jackson ni waaw Ahmed dem ni waaw arbitre sifflé na diggante Ahmed Deme ak Jackson Diamond Events Ahmed Diop moo ñi fi woo drapeau Bamba Fall la weeru jigéen ñi di ci sargal jigéen ñëpp suñu yaay suñu rakk yi jigéen suñu jigéen soxna yi di ci sargal eh daw nañ jël Ahmed Deme Ahmed Deme jël nañ la egg la fu sori rëpp am noonu amul jëlaat nañ la Ahmed Deme mu bañ daan nañ la. Ahmed Deme. yan. maa ngi sant yàlla bu baax. liiru liiru liiru kay kay kay kay kay kay alhamdulilah lépp yàlla lépp yàlla lépp yàlla moo mën lépp am na yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin première réaction lan la. alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax yàlla rek moo mën lépp. mënuñu dara ñu ko imposé sa doole. imposé doole. lii rek. lii rek. waaye mag mag daanu na liiru daanu na mag daanu na deeleen deeleen waa deeleen liiroo ngi daw kay kay liiru bul jooy liiru lu xew mën rek xew gisagoo leen dara sax liiru yow gisagoo dara liiru sigil sigil liiru sigil Lamine Ba damaa dégg lu ne. damaa dégg lu ne. waaw. maa ngi ko sóor sama lamb bi mi ngi dem. lamb bi lambaa ngi dem. lamb bi. liir na poos ma. nee nañ ko poos bi mu ne ngi koy sóor nee na lam ngi dem lam bi lam bi. Ameth Deme da koy jabar bi ku ñëw baax na. caar yoof mi ngi fari fari ne booy caar yoof na ñëw ñu këppëgal caar yoof. caar yoof lu moo daan dal yoof moo daan dal suñu ñëwee ñu yoof lan soxla. na ñëw ñu defaraat ko bagaat affaire bi ca. Thiatou Yoff na ñëw ñu ko defaraat ko. ku ñeme na ñëw ku ñeme